Merci beaucoup. Madame la Présidente, euh, Monsieur le Ministre, oui, budget bi nga xam ne indi l'Assemblée nationale war a taxaw jàpp ci voté ko dañ ci Oui, résultat oui forage d'Anjam Siwol et de Agnam Wurossiré réalisé par PIDC oui oui tu puisses y avoir ne pays des moo réalisé loolu lépp waral inshallah. Tu te tamit loolu ci ay mbir yoo président de la république Macky Sall laa wax daf ñu film ay firnde un village qui s'appelle Sareliou 36 km pour demander ah, pour y Fofu, 6 heures de temps actuellement c'est 25 minutes kan réaliser PIDC il faut électrification rurale il faut forage vous ne partout voter Bon, bon. Je président de la République gouvernement je ngi Je le ministre Mansour République. te tamit ñun bu ñuy wax du pour assemblée nationale la ngi toog ñuy wax pour tàccul la walla xalamal la déedéet danga koo jëfee danga am d'abord yar am teggin yëg nit ñi yëg askan bi fépp fu la Macky mu musoon teg muy ay responsabilité bi mu jëlee pouvoir bi ba tey danga koo doxal soo wonee ginnaaw nga bàyyi foofu de très bons souvenirs loolu dafa am solo ci wàllu koo xam ne ne dañ laa dënk nga xam ne yii moo moo ko dañ laa dénk Yalla may aussi nga am collaborateur yo xamné ne sûrement résultat ci ministère bi le denk Sénégal yépp dañ ci xaar résultat mais dinañ ci gis sen bop piment PIDC wane déjà résultat Semi couverture maladie universelle non ami et frère monsieur Daf xam nan ce qui se passe lolo waral monsieur le ministre ñun ben engagement lañu yor Lo xamné ne njëriñ askan bi la nit ñi dañ ci gis sen bop te tamit nga jege population bi loo fi indi rek dinañ ci jàpp voté ko ndax njëriñ askan bi moo ñu fi tax a toog te tamit monsieur ministre wax dëgg yàlla euh, assemblée nationale dafa am liggéey bi mu war a def ci biir ci kanamu askan bi yépp bu ministre ñëwee fii indi loo xam ne nit ñi comprendre nañ ko warul waruñu xool benn doxalin lu dul intérêt Sénégal bu leneen amee aussi ñu taxaw défendre ko ko lépp ak xel te ci kaw nag ñu comme fii dafa am ay texte am ay règlement intérieur am lu ci yoon wax am lu ci yoon tere ñu doxal ko comme ni ñu ko war a doxalee wax monsieur le ministre budget bi nga indi fii boo multiplier par par deux Sénégal war ko voté ñun ñi député assemblée nationale dinañ ko voté ndax ndax am na retour ci biir askan bi nit ñi gis nañ ci orientation yi président joxe. askan bi a tax te yaa ngi koy appliqué comme ni mu ko waree looloo waral nag incha allah gis nañu suñu bopp ci ministère bi gis nañu suñu bopp ci budget bi xanaa kay mbir moo xam ne ne comme dafa baax population lañ koy utal du doy tous les jours rek comme dañuy voté budget dañuy bëgg muy gën di yokk rek loolu mooy lu am solo moo waral nag un village qui s'appelle Agnam Thioday dama bëgg ngeen bindi ko mu nekk population boo am au moins 10 000 habitants dans ma commune que, Inch'Allah, je me dirige. un forage, il puits, mais puis le puits, le a commencé à dire château de Bain, il faut que nous Et c'est le pays de ces réalisé. Le château a au moins 125 mètres, euh, presque 25 mètres de longueur pour nous le forage. nous avons forage 10 000 ou 12 000 habitants, nous avons la population toute est tout te tamit nak am ngeen fofu benn puits actuellement bo xam ne dafa xaw a soriwul nonu sax fofu lañ dem raccorder pour dëkk bobu mëna am ndox kon buñu amone puits si dëkk bi mu régler walé problème ñun nak amuñu problème ndox ñun dans la commune que je dirige je dis mëna am n'ak dans le département on en a besoin Té li tax ñu soxlo ko nak askan bi mo tax am ñu ay piste électrification rurale commune bi may diriger ben village mo ci dess pour mu am courant nous sommes peut-être, tu vois le pourcentage, à 99%.